ak fépp foo xamante ne ni falaa nekk di bañ nooteel ngir coono ak fitna gi ñu teg sama as